xamante ni mësulaa bëgg te du la bëgg te dalay yàqal ba àddunay tukki mooy jinne léegi nag ennemi bu amee wala lu lay yàqal foog nga am loo xamante ni moo lay xamal sa noon lan la ak lan la bëgg ak fan lay jaar mhm. moo tax jullit bu si nekk war na gëstu alquran ba xam lan mooy ennemi bi jinne ak lan la ko mën a yàqal ak fan la mën a jaar ba protéger si boppam te loolu alquran rek moo ñu ko mën a jàngal mhm. moo tax alquran yàlla wàcceel ñu ko ñun nit ñi war koo jàng mu wut si benn saar sóoratul jinne mhm. maanaam alquran am na saaru jinne mhm. mais lan moo tax yàlla wàcce saaru jinne saaru jinne boobu mooy dafay identifier sa noon bi yow nit bi nga xam ne moo yàqaloon sa maam ba génne ko fu ligsi fa muy àjjana mhm. fexe ba jaxase kook jëkkëram muy aadama ak awa ba ñu lekkee garab bi fexe ba jaxase ay doom ba ñu rayante mu ni la nag ennemi boobu deewul ba léegi mi ngi fi te aw xeetam ñi ngi fi ba léegi ni mu yàqale woon sa maam ba génne ko ci lix dox nooneel ak mbañeel ci diggante jëkkër ak jabar muy aadama ak awa hmm. fexe ba dox ci ay doomam ba ñu rayante muy xaabil ak xaabil ñaar doomu aadama yooyu rayante mu ni ko noon boobu nag ba léegi mi ngi existé mi ngi dund noonu mu yàqale woon sa sëyu maam yàqal say doom bañ rayante ba léegi noonu lay nekkee ci kër yi di yàq di ñuy reyante ñuy defante lu nekk kon nag war nañoo jël alquran jàngat ko pour xam suñu ennemi boobu lan la man ak fan lañ mën a jaar pour contre contrecarrer ko mm-hmm. moo tax yàlla wàcce sóoratul jinn sóoratul jinn bi ko yàlla wàcce daf ñoo xamal nañu lii ak lii la jinn daan def pour yàqal leen lii ak lii ngeen mën a jaar pour moytu ko seen ennemi boobu di di noon boobu muy jinne moo tax boo xoolee yonent bi salaa salaam dund na lu yàgg mësul gis jinne yi xamul fu ñu nekk mais xam nga kañ la yonent bi njëkk a rencontré jinne yi mm-hmm. yàlla xamal ko sa sa ennemis lu tax ak fañ lañ jaar mooy bu njëkk avant alquran di ñëw jinne yi dañ daan dem ba ci kaw asamaan di déglu wax yu di déglu li malaaka yi di waxanteeg yàlla mm-hmm. parce que yàlla chaque année dina def li ñuy wax conférence de presse mm-hmm. génne ci année bi li ñu war a li ñu war a liggéey yépp jox ko malaaka yi yow yaa war a rey nit yow yaa war a fal Maodo Faye directeur yow yaa war a dem si Ousmane Dia yow yaa war a nàngam si année bi lay def conférence de presse bu xamal leen ko muy jour laylatul xadri mhm. léegi jinne yi nag dañ daan tegaloo di dem foofu di assister di déglu bu ñu ko dégloo na di ñëw ci njibarkat yi mooy ñi def magie noire te gëmuñu yàlla mhm. di collaboranteeg ñoom ñi leen di defal li ñu bëgg ñi leen di jox information boobu naan kerokat bi yàlla def revue de presse wax na ni Ousmane Ndiaye dina nekk nangam bu ko defee Ousmane Ndiaye ñëwee jinne ji wax la ko nga daal ko koy seetal wax ko mu jox la xaalis mooy ay pettaaw ak yu ñàkk yooyu nga xam yonent bi saasam da ko siboon hmm? mhm. te loolu day yàq àdduna ndax xërëmkat yooyu bi ñu demee ba am accès ak jinne yi ci la àddina commencé di yàqu ndax li jinne yi bëgg pour ñu indi la information day yàq àdduna xam nga lu jinne yi bëgg mhm. ndax yonent bi salaa salaam bi mu tasanteeg jinne dañ jinne dañ ne ko yow yonent bi lan mooy comme ñun tuub nañ gëm nañ yàlla lan mooy suñu ravitaillement lu ñu la war a lekk xam nga leen yonent bi wax dégg lu baax ne leen bépp yax boo xam ni kenn amatu si soxla sànni nañ ko dee leen ko lekk moo tax yonent bi ne yéen ñiy dem duus ci àll bi bu leen di raaboo yax ndax lekk jinne yi la jinne yi na ko waaw léegi dama lay laaj Maodo yax bu màggat maanaam yàpp bu bees ak bu màggat bu gën a neex kon yax bu bees la gën a bëgg moo tax jinne yi dañuy ñëw si jibarkat yi ne damaa bëgg organu nit bu bees bu amagul jour nit ki ñëw si yow pour nga bëgg koo liggéeyal nga ne ko rayal ma nit ma fal la ci place bi wala ma ma ma yàqal la nit boo ko defee boo rayee nit indi tànkam wala daraam da koy jox jinne ji mu seeñu si lekk si dem ci nit moomu dugg ko dofloo ko yàqal ko jaxase ko lépp parce que yonent bi salaa salaam nee na jinne mën a dugg si nit di daw comme ni di dawee yonent bee ko wax mm-hmm. hmm? léegi nag yàlla bi mu bëggee defar àdduna bi bi alquran wàcce yonent bi salaa salaam di jàng alquran jinne yi laylatul xadri jot conférence de presse bi amatuñu accès pour dugg ca saal ba ñoom ñëpp ñu tiit daan di laa ilaha illallah ma ñun mënatuñoo am information ci kaw asamaan si lu ko waral parce que satellite bi burleel nañ ko léegi nag ñoom jinne yi wër réunion ne léegi lu may wax ni alquran la de du xissa mm-hmm. alquran la texte coranique la mm-hmm. jinne yi daal ne léegi nañu réunion pour xam kan moo burle satalaay bu mënatuñu am accès ci li malaaka wax ñuy wër di wër di ñëw ba ñëw Médine fi yonent bi salaasam di jullee fajar yonent bi di julli fajar di jàng alxuraan jinne yëpp toog na toog bi ñu dégloo pare xam nga lu wax ñu ne haa information bi yonent bi di joxe moo burle suñu satellite bu ñuy jëlee information di ko jox jabarkat yi. satellite bi mënatu la dem. mënatu la dem jinne yi ñoo wax de ñoo wax de. in eh, eh,